jërë jëf mbokk yi nuyuwaat nañ leen bu baax a baax ñi ngi fii ci Kaolack Ndangaan dëkkab Cheikh al Islam Mame Baye ñi ngi ci drapo du chef de l'État ku ne xam ne nag tey mooy càppaandaw gi diggante Kaolack diggante Jurbel euh, la nar a doon ak équipe bi nga xamante ne bii moom mooy Thiès tey nag dañu seet si ñaari équipe yi nar a dem final ñi ngi nii ci waa Thiès si dañuy def rek lu dul ànd ak Mansour Fall ak sama équipe ñu ànd dem xool équipe bu Thiès bi naka la ñuy préparé dem xool équipe bu Thiès bi ci yan anam la ñu nekkee loolu ci kanam tuuti lay doon ay ca Mansour ñu dem dugg ci biir xool ñi nga xamante ne bii ñooy équipe bu Thiès bi kon ne xam na ne Thiès nag dafa am vécu ci drapeau du chef de l'État sama yi nuyu naa leen jaajëf champion añaaja El Hadj Sidi Ndiaye mbër coach jaajëf ñuy jaar Euh, sa la Leewtoo TV moo leen seet si woon par rapport ak préparation finale bi xam na ne finale fête la finale bis la ba nga xamante ne bii euh, bis bu rëy la ci événement bi 14 euh, raisons daje woon fii yàlla def ngeen bokk ci ñaari raisons yi mujj nar a jongante finale bi du ñu def rek lu dul jege coach coach bi nga xamante ne bii moom moo mooy coacher équipe bi coach su ñu ngi lay giar maa ngi leen présenté wul. waaw man la Youssouf Tall. waaw nekk coach équipe bu Thiès. su ñu bëggoon rek nga wax ñu naka ngeen waajale xale yi bi ngeen di ñëw. waaw waajal bi nag tout d'abord dañuy euh, sant di gërëm ñëpp vraiment di remercier délégation bu Thiès CRG bu Thiès vraiment ñu amal liggéey bu am solo amal liggéey bu jaar yoon euh, wuti ay partenaires teel a taxaw équipe bi. jël leen wàllum euh, maanaam regrouper leen quelque part pendant presque une semaine ñu nekk au niveau du SNEPS de Thiès def ay entraînement yu wóor travail ci poids yi travail def technique travail tactique donc vraiment préparation bi préparation bi jaar yoon la. ñu gis bi ñu tiré ngeen ñu gis poule bi ngeen amoon nekkoon poule bu metti mën nga ñu ci ñëwalaat. waaw tirage bi bon comme que ñu ñoo génnoon daaw jekk euh, premier donc ñu ñoo nekk tête de poule mais nag du yomb parce que léegi bëri léegi ñëpp ko moom amul benn région rek. donc ñu def tirage bi bërek euh, Ziguinchor bërek Tamba génn fa nekk fa premier def demi-finale croisée waaw demi-finale croisée tamit ñu am Dakar Dakar bi nga xam ne dañ. mu nekk mu nekk finale revanche parce que daaw yenn finale woon fa fële daaw jéeg yenn finaal woon Mbour. voilà mu nekk mu nekk daanaka finale revanche ñu nekk dakaar mu metti woon lool mais yàlla suturaal ñu ba ñu def fa 5-0 comme ni ko defee woon ci finalu daaw jéeg ba. waaw bu ñu ñëwee ci finaalu tey bi préparation bi fekk gis nañ xale yi ñu ngi ci dispositif yu baax euh, lan mooy dernier briefing bi. bon dernier briefing bi rek xamal leen ne final moom bis li ñu naan bis du tuut te defoon nañ ko daaw jéeg mu jik ñu ren tamit ci la ñu nekk donc xam naa dañ leen accordé quelques instant rek mais dañu nekkoon ci récupération parce que ñoom aussi dañu war a bàyyi équipe bi ñu récupérer tuuti pour waajal ngoon parce que final la te kenn du ko caaxaanee liggéey bu mag la ñu amal. donc duñ ñëw ba fii vraiment di ko saax-saaxe daal mhm. kon lan lañ mën a xaar ngoon ci équipe bu waaw en tout cas en tout cas entrée bu explosif incha allah te goos yi poulain yi ma yor nii vraiment ils sont décidés waaw ay goos yi décidé lañu xam nañu leen i xaar te xam nañu ne final bi duñ ko caaxaane waaw. final bi duñu ko caaxaane loolu la coach su wax du def rek lu dul jege euh, capitaine bi di ki nga xamante ne bii mooy Libidor Libidor nekkatul mbër mu ñuy présenté ci Sénégal Libi ziar nañ la. waaw ñu ngi lay dollu ziar bu baax. di bëgg lépp lépp jàmm. sant yàlla di bëggee waa Leewtoo bu baax. di di di kontaan tamit si teewaay bi. parce lii mooy doxal sport. waa ginnaaw boobu nag day sant suñu waa région suñu waa de ñu ngi leen sant. di leen taalal loxo. di wax ñaan seen i seen njaboot aussi tamit di sant ñi nga xamante ni mooy kës yi nga xamante ni ci wàllu nekkin wu nekkin fii. parce que encourage bi yëpp taxawu nañu. dooleel nañu. tamit li am tamit yombul. ah vraiment ñu ngi taxaw guddi ak bëccëg. nekk ñu nekk mu rafet li des nag mooy tàllal suñuy loxo def ñaan boole xol mu nekk benn di ñaan yàlla yal nañ yàlla may drapeau bi mu sedd si ñun waaw te bu gënee si tamit yàlla ñëw. ñu gis na yow yaay magu xele yi yow yaay capitaine d'équipe bi euh, euh, tey euh, li nga mujje wax xele yi avant ngeen di dem stade. non instant bi li ñu war a li ñu war a waxtaan waxtaan nañ leen li wante des na ndax lépp foog naa ne tamit sa géew ba lay leere bu demee war a sëgg tamit. dina am ay baar yu war a jotlante foofu ñu dem gëm wante incha allah ñun yor daal am na si ñoom yaakaar. ngeen war a daje ak Diourbel sa diggante ak booy fay waaw sama diggante ak Boy Faye làmb la combat la làmb moo boole te incha allahu rabi dinañ bëri lu neex lu rëy ndax ñaari mbëri mbëri yoo xamante ne xamante nan yàgg nañoo daje su ma juumulee drapeau Celta daje nañ si trois fois. waaw trois fois par daje nañ par équipe daje nañ par NVL. kon maanaam du tey daal lan daje. kan moo ëpp li mu daan. non drapeau soldat wax dëgg yàlla dañu daje yëpp maaxu ko génne. maa ko génne waaw. noonu mhm, ngeen fas yéenee dajawaat mais bu ñu jógee foofu am nga beneen final mooy final individuel yow ak général Malika tamit noo koy waaje waaw ni may waajalee comme ni may waajale final rek laay waay parce que ñun li ñu war a def yëpp def nañ la groupement. taxawoon nañu. di sant nag euh, père Bassi bu baax parce que taxawoon nañu na kees la nekk nekk CNEPS nekkandoo ak ñun bokk si nag si CNG bi yaa ngi yaa bu baax. wante moom si raison de kees la nekk tey parce que ni moom moo doon saytu def def def ñun lu bëree bëri. kon tey bu fekkee tamit wax dëgg yàlla moom mu mu nekk ni koo xamante ni intellectuel la si mbir mu muy def kon ñun tey bu demee si biir kër warutunoo tiit warutunoo am lu ñuy hésité dama demoon ak moom nag ci combat ñu daje woon si drapeau de la kees ma def juumte tuuti mu génne ma wante incha allahu rabi loolu du amaat. kon tey la. waaw tey revanche revanche la man. Mm. parce que bu dul dara bu nu bëralee relation ba pare après dafa am leen loo fi des. parce que ñooy bokkaat même di sëgaati géew. ñooy bokkaat terrain bi waaw ñooy ñu duggee hmm. ma ko dara mu dëggal boppam taxaw ñu bëre. incha allah mu dëggal boppam taxaw ngeen bëre. waaw loolu rek laa koy. kàddu gu mujj. waaw sant nag sant ñi nga xamante ni. booy yi nii sama gars yi parce benn la dañuy kaf dañuy ree ñun ñëpp ñoo bokk luñ bëgg ku si nekk ci équipe bi rek yal na la yàlla defal jàmm boo bërees jàmm nga bañ a am benn ndog-ndog ba delluwaat say mbokk ndax tey def na quatre jours si àll bi ku si nekk yaa ngi bàyyi sa kër kon yàlla ni ñu jógee foofu ba ñëw yàlla nañ ñibbiwaat si jàmm ñibbee si drapeau bi yàlla defal. suur ñu jël xaasim ba noppi mooy 66 kilo bi champion ziar naa la. doole ziar. looy yëg ci yaram bi fi mu toll nii. en forme rek en forme rek. yaa ngi ngi yëg sama bopp a angoon moom ñoo koy préparé waa cees ak suñuy mbokk di jox gars yi rendez-vous esat ñu xaar ñu foofu ñu wane lu ñu entraînement ak suñu coach waaw ñu wane ko foofu xam nga wane ngor ak jom quoi que le meilleur qui gagne quoi. que le meilleur qui gagne merci beaucoup Xaasim kilos bu cees kaay El Hadj Sidi Ndiaye borom Joal ñu naan ko yaay Xadi champion ziar naa la. waaw si jàmm ñu ngi looy wax gars yi. gars yokk ñaan rek. comme nu nañ ñaanee démb ba ak démb ñu continuer ko gën a yokk ñaan gën a yokk salaatu yi ngoon ñu baatale Jurbel jël ndam yóbbu ko Thiès parce que loolu gis nañu sas dañu jox drapeau ñu yóbbu daaw ak victoire te loolu ñaan yàlla te loolu leen liggéey tamit ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla mottali kattan nañu may nu kattan bi ak fula ak fut bi ban bi géew gi ndam yëpp féeré suñu côté rajaxe war a daje ah loolu garaawul loolu xamante nañ bu baax <laughs> xamante nañ bu baax dana leer ngoon stade mbagandoon a rajaxe la war a dajal ay ñu jël beneen champion bi Ndiame euh, Ndiame mooy 76 kilos bi champion ziar la. maa ngi ziar. looy wax waa Thiès. Ah, maa leen di gërëm di leen sant quoi am na seen fay. ñoom ay bidoo ak kii ak ñoom xaasim ñëpp daaw am na seen fay quoi. waaye Père moom ñu ngi koy Père yaa ngi nañu ci affaire bi rek. yaa ngi soog a ñëw drapeau chef de l'État. waaw maa ñëw man ñëwoon naa daaw géej gi bëriwuma quoi. Ah, waaw ndi ren daa soog ñëw di bëre. lu yaram saa yi moom bëri rek. mi ngi baax. Mhm. jaajëf. ok. ayca mu des benn ayca Dibakor Sañ. Dibakor 86. moom gànja faama la am. champion la am. démb bëri nga gànja. démb bëri ngeen nga daan ko. Dibakor. waaw bëri nañ. Eh, man moom li may wax chaque jour. làmb moom yàlla mooy maye mooy xañ. ku mu may nga xam ne da laa war a may ku mu xañ nga xam ne da laa xañ rek ndax euh, terrain bi ñun ñëpp ñoo ko bokk euh, ñooy compétir si àll bi aussi ma profité di gërëm suñu équipe bi ak suñu staff bi làmb nag neexul neexul ku ci dugg moom xam nga ne neexul mais nañ ànd ak yàq. tey nga war a bëriwaat ak gànja démb nga daan ko. waaw loolu moom mbirum sport la rek waaw nit ki da koy daan tey bu subaa mu daan la mbaa mu daan la démb tey nga daan ko. waaw ñaari final laa war a bëre waaw war naa bëre ak Gandia war naa bëre ak Pape waaw. waaw war nañoo bëre mais loolu lépp dañ koy tënk ci sport rek waaw waajee comme ni ñu doon waajee rek waaw que le meilleur. mi ngi noonu nekk délégation ba nga xamante ne bii chargé d'organisation bi mooy. Vieux Sène Vieux trente secondes rek. waaw jërëjëf Cheikh bi man daal li may wax mooy sant yàlla sant suñuy ñaari waajur sant suñu sëriñ Cheikh na saat bu di sant tamit xale yi ndax vraiment su ngeen gisee ngeen egsi rek man leen kaa leen toog ñun dañuy ànd ak yar du ndax nit mais comme organisation la ñu jege jël lu toll na région de Thiès teg ko seen loxo kon loo ci mën a jàpp ba du am benn faay rek dañ koy def mais ñun ak yéen ñëpp lañu yemale kontaan nañ ci yéen jërëjëf. jaajëf président DTR DTR deux cas deux mots. waaw satisfaction totale sur mes lutteurs et sur la vraiment l' organisation aussi ak ak sama lutteurs yi encore di sama confiance. xam ne ñu ngi seen ginnaaw ñu région de Thiès la ñu am moom la ñu défendre euh, euh, que le que le drapeau vienne avec nous loolu daal la ñuy ñaan te yàlla ko yàlla defal. jaajëf DTR jaajëf sama ay ca ñu ngi noonu kon ñu jëm seeti waa Diourbel yi parce que ñëw war a daje ak waa Thiès mu nar a nekk final bu metti entre Diourbel ak Thiès xam ngeen ne Diourbel Thiès diggante bi soreewul dañuy daw léegi seeti délégation Diourbel bi jox leen ko en exclusivité fii ci Leewtoo TV lépp lu ngeen bëgg ci làmb bu leen buuse mètre fii dong voilà jërë ngeen jëf mbokk yi gannaaw ba ñu jógee fële ca équipe bu Thiès bi jël seen ay réaction ñu ngi fii ci équipe bu Diourbel bi nga xamante ne bii ñoom ñaar ñoo war a daje ngoon fële ci stade Lamine Gueye bu Kaolack ñi ngi nii fekk nañ la ñoom tamit ñu ngi préparé mais dañu ñëw fekk fii monsieur Moustapha Gueye directeur général CROUS de Bambey euh, moom mi nga xamante ne bii euh, Diourbel la dëkk doomu Diourbel la tamit ñëw seet si xale yi déjà ñu ngi lay maa ngi lay maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi si jàmm. alhamdulilah. ban yëg-yëg nga am bi nga ñëwee fii ci Kaolack xale yi dem final ah mais en tout cas kontante bu mag a mag gis ngeen xale yi ñii duñu caaxaan sànq maa leen di wax ne teg nañ fondation yëkkati nañ teg nañ toiture bi fu mu nekk dañuy peinture loolu mooy phase de finition Lamine Gueye xam ngeen lu ma bokk moom sama maam la. te foofu stade boobu dafa am ay rab yu fa ne yu am doole man nag lu ma man mooy rabu Lamine Gueye ma booleek leen ñoom ma boole kook ak ñoom ba ndam si am mu coupe bi moom bawol na jëm loolu moom leer na yow loolu doo ko werante donc ay mbër nañ yor. yoruñu ay cuune ay mbër nañu yor te mbër yi dañoo xiif donc tey yàpp nañuy lekk donc loolu moom leer na. dernier briefing bi nga def ak ñoom lan la. encouragement encouragement et puis vraiment les euh, di leen soññu ci fair play ci fair en tout cas coow moom xamuñu fu muy jóge mais du jógee Bawol Bawol moom xamuñu lu fay dem Jurbel mais ndam moom foofu na jëm loolu moom c'est très clair. merci beaucoup DG. jërëjëf merci. ok voilà merci beaucoup DG gi noonu du ñu def rek lu dul xuus ba léegi. jéem a jege coach bi jéem a jege coach bi ak équipe bi ayca équipe baa ngi noonu mañ coach baa noonu ñu dafa leen présentation équipe bi orange moo nekk noonu mooy catégorie 66 kilos orange booy fay mooy catégorie plus de cent ndambe 76 kilo ana rajaxe ak ki nga xamante ne bii moom mooy ganja faama rajaxe waaw ganjaa ngi noonu ganja faama mooy 86 kilos bi gànja mooy 86 léegi coach ñu bëggoon a def benn waxtaan bu ndaw rek gannaaw ba ngeen euh, compétiré ba dem final euh, tey ngeen war a euh, jouer li nga xamante ne mooy final ñëpp xam na ne final fête la naka naka ngeen ko waajale waaw Mbaye Babacar ñi ngi sant yàlla bu baax a baax ni bi ñuy jógee suñuy kër di ñëw lii lañ doon ñaan suñu borom mu indi ñu final te wax dëgg yàlla suñu borom defal nañu ko léegi li ci des daal mooy ñu dem ñaan ko ndam ci kaw Thiès te incha allah ñu ngi koy ñaan suñu borom bu baax a baax xale yi nag ñu ngi nii ñoom gis nga seen xar kanam yi boo ci gisee sa xam ne victoire moo ci nekk macha allah yàlla na ko yàlla eggale parce que ni ñu ñëwee ci stade bi barki démb ba léegi ak démb wax dëgg yàlla ñëpp ñu ngi naan jurbel jurbel jurbel te yéen it xam ngeen ko parce que ñoom ñëpp ñu ngi bay seen waar ci waar bi parce que ñu ngi tari wax dëgg yàlla ñu ngi tari kon nag tari bi ñuy tari tey ci ngoon ñu ngi ñaan yàlla ñu tari ko ci kaw Thiès ba am ndam li jël ko yóbbu ko jaar ni yóbbu ko bawal Diourbel gëj a dem final depuis onze ba mu ko organisé Thiès jël ko daaw andiwaat raaye bi bëgg ko yóbbuwaat. waaye waaye du yo du yomb yóbbu bi moom du ko def. jël bi moom ñun ñoo koy jël jaar ak moom ñii yoonu bawal comme que bii passé la jëloon bii daf ñuy bàyyi ñu ñëw ne ko kirting ñun yóbbu ko. te incha allah loolu la ñuy ñaan suñu borom. ci dëkk euh, Ibrahima Niass bi. te suñu borom dañ ci ànd ak ñun. macha allah loolu la daal. merci beaucoup coach léegi duñ def rek lu dul avancé jege orange mooy catégorie 66 kilos champion ñu ngi lay ziar. maa ngi lay ziar maa ngi ñëpp. waxal ci kaw. maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp. ah ndax ñooy sama mag koo xam man nag euh, lu may wax moom bëriwul noonu. ndax euh, gars yi moom à chaque jour. su bu leen gis si biir géej bi rek man damay am damay. gën a gis la nga def entrée bu am solo. Hmm, gis nga ñoom nag ñoo ko waral quoi. ndax man bu mu leen gis si biir rek man damay kontaan quoi. tey lan ngay waajal. tey maa ngi waaj daal maa ngi waaj. Hmm, maa ngi waaj pare nga ci côté yëpp. non pare naa. xam nga ki nga war a dajal fële ca Thiès. oui xam naa ko. Hmm. xam naa non mosuñu bëri waaye man dama ko seetaan ba sonn temps booy waa. kon xam maîtriser nga ko. maîtriser naa ko si benn côté. Hmm. oui. ci kanam dina leer ay ca mi ngi noonu du ñu def rek lu dul jege ndambe mooy 76 kilos moom dafa war a finalu par équipe dafa war finaalu finalu individuel champion jaar nañ waaw ñoo ngi bëgg de bilaahi maa ngi bëgg sama gars yi waa wal TV maa ngi leen bëgg bu baax bilaahi man la ndambe is baak wala du may ni nga xale bu xew si jamono yaa ma gën a xam nag ñu ragaluñu loolu quoi ñun Jurbel li ñaan yàlla jël ko coupe ndax Jurbel ñun tout le temps yaa ma gën a xam quoi yow xam nga nu mu demee ñoom père bu naa ma ñooñu doon yóbbu ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xaral àjjana père bu naa ma tax na ren ñu war a rayante ba dee ak ñoom père Etienne bi ñu ne ah yaa ma a xam ñoom daal moom suñu yoon nekku si ñoom Ndambe mais affaire daal amul yàqalaate gars xoola affaire bi rek muy ndindit boo dee muus ne ñeew. ayca jaajëf ba nga door ak ganja ganja 86 kilos ganja yaa ngi soog a ñëw drapeau du chef de l'État mais da nga ñëw rek mel ni yàgg nga fi ñëw ñëw rek wane sa bopp lan la lu waral loolu. waaye gis nga rek comme ni ma la ko waxee rek avant tout d'abord maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di nuyu sama waa dëkk. Euh, di nuyu sama waa Fams Club. di bëggee suñu association bu mag bi ñu koy naan ADEB. ak beneen association bu mag bi ñu koy naan Bantamba. di leen ziar bu baax gis naa seen taxawaay ci man. waaw sama teewaay chef de l'État bi moom contentement la ki man parce que c'est la première fois may teew si drapeau chef de l'État moo tax bi ma koy waaj daal si bépp côté laa ko waaj ma ñëw wone fulla ak fayda comme gars yi ni ñu ma xamee daal waaye noonu laa ñëwee. démb nga bëre ak ki nga xamante ne bii moom nga war a dajal tey ngeen bëre mu daan la tey ngeen war a bëre waat. gis nga rek comme ni ma ko daan waxee rek ndam rek. waaw. ndam rek man góob ma defet. victoire rek démb la. waaw daan na ma. ma koy félicité ci loolu. mais na xam ne tey moom client bu mag mag la am. waaw instant bi moom maak moom 2 la. mais tey damay dal ci kawam. ah bëri ngeen fois 2 fois waaw. oui. mooy combat clarification. oui. war a leeral. confirmation bi tey la ñuy lépp. waaw di ñaan yàlla yàlla may ma ndaw ci ndam ci kawam. oui. jaajëf ay ayca capitaine bi la ñuy jël léegi ñu jël capitaine bi Boy Faye rajaxe moo ci des te rajaxe nee nañ dafa génn ñu jël capitaine bi booy fay champion maa ngi lay ziar borom Burkina Faso. <laughs> waaw ñu ngi lay fay Babacar bu baax baax. waa yaa ngi am jàmm. waa ñu sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. noo leen waajal xale yi yow sax du ma wax yow noo waaje mais nooleen leen waajal xale yi. waa gars yi xale yi waajal nañ leen rek. xamal leen ne jeu bi jeu xel la jeu jom la ak fulla ak fayda ndax ñi fa seen i nawle lañ li ñu mën ñoom war nañ mën lu ëpp loolu bon gëm-gëm la rek que bi may ñëw dama leen xamal ne ñoom ñëpp ñu toog ma am lu ma def ci seen xel ne leen nag ci kàttanu suñu borom yow mii di ubbi damaa bëgg nga def victoire te ki ci topp na fay naar bi xoromam damay bëgg nit ki bu bëree def jom ki topp naka defee noonu quoi mais ni ma leen nga waxee ñu ngi koy defee noonu te déggal nañ ma su ma la taxawal di nga taxawal demal dinga dem te li ma leen wax vraiment loolu la ñuy joué ñoom moom ci kaw loolu lañ taxaw kenn wàññiwu ci dara waaw man noonu laa ko bëggee ni ma ko bëggee ñu ngi ko koy defee ngeen war a daje ak Thiès tey. waaw ñun ak Thiès waaw. ñu war a daje di ko waaj comme yeneen lamb yi rek bi ñuy ñëw lan la ñu wax dañoo amoon ñu fi taxawoon nekkoon ay favori mm-hmm. ñu génnee leen. Mm-hmm. génnee Kaolack génnee Fatick. <laughs> waaw ñu génnee leen mais kon kii sunu kanam nii. Mm-hmm. dañuy am ngëm-ngëm bi ñu yoroon dañ ciy dolli lu ko ëpp doole rek ñëw jaar ci kawam dem suñu yoon quoi loolu laa gis ah. yow ak Libidoor la. waaw maa Libidoor la gars yi miinante nañ. waaw ku ne xam nga sa morom mais nag. yàlla baax na tey mën naa wuteeg ya fi daan xew yu bare bëri xam daan nañ ñëw sànq am na ko ma introduire ne ma mën na jeexee match niil wala par point. li bi xam na ne bëre mënul gaaw. yenn saa yi day yéex. ma ne ko yàlla baax na lépp mën naa xew mën nañoo ñëw mu gaaw lool <laughs> yàlla baax na daal yàlla baax na laay wax sama digganteeg moom. kanam tuuti esat waaw rendez-vous si kanam tuuti rek muy gaaw lu yaajaa rang muy gaaw mais gi rang muy gën a rapide la ci gën a gaaw muy gën a gaaw rek ayca <laughs> jaajëf jaajëf mooy sama professeur kii moo ma dalal ci li nga xamante ne bii mooy reportage u làmb ñemoo ma dugg fii jël ñëpp duma ko jël kii mooy xaw si Jaw borom Bawol FM professeur maa lay nuyu mbay fay naa la <laughs> di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne bii ñu ngi bàyyi xel Leewtoo TV di di gërëm sa caméraman di gërëm njaatige yeeg ñëpp ñi nga xamante ni bii ñu ngi bàyyi xel site internet bi dina wax ni mbay yaay sama yaay sama njaatige waaye yéen na ngeen xam ni mbay mi moom ma dalal moom ma dalal moom ma jàngal reportage consultant laa woon ci moom mujj ma jàng ci moom reportage ba continuer am moom moom ak Moussa Faye frère am ñoom ñoo ma jàng reportage mbay nga ànd ak équipe bu Diourbel bi jërëjëf nga ànd ak équipe bu Diourbel bi ngeen war a dem final looy wax xale yi. nit ki da ngay xam li nga bëgg xam ni nga koy wutee mu jaral la ko nga di ci xëy di ci gont yaakaar naa ni mbir mi am na sens waaye tamit am na mérite ndax ñi nga xamante ne bii tey jii ñoom la ñu indi fii ñi leen fi indi war nga leen a xam ndax ku xam Etienne Ngom xam ñi nga xam ne ñoo nekk si ginnaawam yëpp ba Mbaye Babacar bàyyiwuñ la bàyyiwuñ keneen wuñ keneen kon ñooñu yaakaar naa ne suñu coptee ay mbër indi leen fii mu am ci ñaari représentant yoo xam ne c'est pas la première fois ñuy représenté parce que booy fay mel ni capitaine bi bi mooy quatrième fois yaakaar naa ne muy Euh, édition bi passé moom moo jëloon médaille door bi waaw 86 kilo ci euh, euh, fële ci ca Mbour waaw te mu ngi représenté woon Diourbel si par par équipe par individuel kon yaakaar naa ni ñooñu rek suñ ci dollee boy bi nga xam ne muy gànje muy xale boo xamante ni bii macha allah mu ngi toog di jog lu bëri nekk ci ginnaawam yaakaar naa ni leneen luñ ci dolli rek yaakaar naa ni dinañ mën a dem ci lu engagement nga gis ci xar kanamu xale yi tey. waaw soo pare actuellement vraiment pare nañu. Euh, si tous les catégories catégories yëpp yaakaar naa ni ni ma leen gisee nii pare na xëy na am na tuuti rek loolu lu ma xaw a jaaxal tuuti rek ci euh, catégorie ci suuf bi parce que 66 bi instant bi nii gisuma mu nekk à l'aise mais ñi j des ñëpp xam nga man moom du mën a butu man sama wax moom waaw li ma gis laay wax mais ñi ci des ñëpp forme vraiment ils sont parés yaakaar naa ni dinañu dinañu def le maximum parce que am na ñi nga xam ne ñooy nekk seen ginnaaw muy coach yoo xamante ni nañ wax ak ñoom mais li may wax toujours rek mooy ñi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak mbër yi nga xamante ni bi bokkuñoo ak entraîneur bokkuñoo ñooñu toujours nañuy def ndànk waxuma ko pour tey mais pour ëllëg parce que mbër mi dafa am entreneur mbay mbay mbër mi ñëw na ci langue gi entraîneur bi nga xam ne moom lañ désigné pour mu entraîner ko pour mu yore ko ci jour boobu nañ ko bàyyeek moom su ko defee mu wax ko li bëgg beneen mooy capitaine bi nga xamante ne bi moom yàgg na ci terrain bi xam na adversaire yu ci bëri xam na leen soo xoolee catégorie 76 ah ba jëm kaw catégorie bu ndaw bi rek la dul miin parce que en général ay gan ñoo fay ñëw mais yeneen catégorie yëpp da leen di miin kon lu mu leen di wax tamit nañ ko bàyyi xel kon yaakaar naa ne loolu mooy sama sama sama looy wax waa Leewtoo TV di bëgg ci ñoom euh, di kontaan ci ñoom di leen wax ni vraiment euh, gërëm naa leen sant naa leen ndax vraiment ni ma gisee ngeen jàppee ko sama professeur bi euh, mën naa ne ngeen gën a jàpp te si doole tamit euh, yéen ñëpp maa leen di jaajëfal ndax liggéey bi rafet na tegu na ci yoon am nga engagé wu ngeen pour liggéey yàlla suñu borom defal leen li nga xamante ne bii moom mooy euh, télévision yu mag a mag a mag a mag à travers le monde entier maa leen di gërëm di leen sant jërëjëf Mbaye Babacar